Ziza ñu lay ziar. waaw delloo ziar a baax. nekk dañu la gën a gis si làmb. waaw non ñu ngi si ne yow nekk si entraînement yi rek moom fas yéene wuñ bëri ñu bàyyi ba déwén quoi pare quoi moo tax. lan moo tax nga woo bëri. non proposé nañ ma ay combat bëri mais yooyu du samay combat ku ay papa booy jëndee ñooñu du ma morom papa ñi ñooy ay morom loolu du ma moromam bay bëreeg moom. ña nga jàpp ñooy say morom. say morom Alioune Seye 2 nii waaw dama ko bu ñëwee léegi sax dañuy bëre léegi. kon Alioune Seye 2 kan ak kan. xam nga tax man am naa bëre naa 18 combats am naa ci 13 victoires il est temps ma bëreeg ñoom Alioune Seye Junior damaa jum Alioune Seye Junior dafa war ñu bëre mi ngi nii ñooñu ay sama mais mënu maa fekk ka nga xam ne ni xaw ma six combat booy jëlee ñaata combat la ma di sax man dama ko seetaan. avancé li nga wax ñëpp nga soxla. non kooku dama bëgg ñu yem Aliou Seye junior bi na ñëw ñu bëree na ñëw ñu bëree man ñooñu laay soxla comme papa wax na seen si bi rek naa ko li wax baax wax na ma lu ne yàlla dafa def ni promoteur musuma woo di ma wax waxu papa. waaw mbokk yi ba tey ñu nekk ak le grand champion Pa Boy Djiné Pa maa leen di yee maa ngi fay. ci la nekk. sant yàlla bu baax. nga forme bi. waaw ñu ngi taxale. ñu ngi taxale baax kay. ñu si ko am baax. nga jógee sa diggante Papa Yade dañoo jël Tapha Gueye 2 lan moo waral nga jël ko. waaw sama jëm waaw ndax promoteur delloowaat na pa pa ah, Tapha Gueye Abou Diassé quoi waaw maa ngi toog di xaar ak beneen com beneen promoteur ak beneen combat daal incha allah. Tapha Gueye la yaa ko woon si promoteur bi. non si promoteur bi waaw laa yaakaar boog si promoteur bi quoi. moo tax nag Ziza léegi mu daal lay sànni xeet ni quoi boo jëlee yem doo moromam. man dama wax si ñooñu loolu wax si ñooñu yàlla dafa dogal ñoo ma bi kay man ak ñoo ma toll tamit toppaloon may victoire yaa dégg waaye làmb mooy tëddee noonu Ziza bu bëri woon ak Papa kan lay bëreel. Aliou la soxla. ah Ziza na toog fële kooku tapal la am toog foofu si buntu centre commercial bi ñu koy rek tapal la yow làmb yow làmb Papa Boy Djiné ñu lay si jël sa diggante ak moom jël du jaaru la. ah tooy fooye moom bu man maa ngi koy xew loolu promoteur yi bëgg a tëgg bu dee xew moo amul promoteur tëgguñu ko lan lañ bëgg a borooloo moo tax ñu koy tëgg. booy booy soo man ku ma la a boroom a boroom yow man am ma boroom adversaire waaye bëreelu ma ak benn mbër buy ñëwee stade yi benn kar wala ñëwee